yema yéen kaay gi de la témoin mu ñu xamal lan ñu en tout cas li nga xam ne na moo am ba des ñaari kaay yu garaaw yi nag loolee danay tax Sénégal jamono ji am xel mu ñaaw kene nag soo moytuwulee daal maanaam dinañu dégg nag ñu ne na am na koo xamante ni faatu na te jàngoroy coronavirus maanaam moom moo ko daa di ray journal bi di laas mu ñu xamal lan ñu en tout cas li nga xam ne ma na moo am ba des na nag coronavirus bi nga xam ne jamono ji ma ngi law ci réewum Sénégal ci ab confinement la ñu daal di jëm en tout cas ñoo ngi koy laam-laamee di ko waxtaanee ci suuf Assane Samb jël xëlimaam ci yéen a kaay gi di réew mi ko dëjee daal di wax ne en tout cas kaddu yi nga xamante ni professeur Moussa Seydi daan na koy yëkkati kaddu yooyu war naa tiital kenn ku nekk te ba pare tamit war ñu see def ab taxaw seetlu jamono ji bu ñu defee confinement ñu bëri ci askan mi mën nañoo am jafe-jafe waaye nag waroon nañoo mën a def dépistage massif maanaam localité yi nga xamante ni coronavirus ba daan na fay bëri ñooñee nag ñu jël ñu bare bare bare ci askan askan wa daal leen di defal dépistage maanaam daal leen di defal ay test fu si mel ak Touba ak mbuur ak Saint-Louis yéen kaay gii de Libération mu ñuy xamal lan ñu lu toll ci fukk ci ay nit ci benn kër goo xamante ni ñoom nag daan nañu amee jàngoroy coronavirus ji fii ci Ndakaaru la dakaar jamono ji nag lu toll ci téeméer ak juróoma ci ay nit amee nañu jàngoroy coronavirus ci capitalu senegal bii di Ndakaaru Njaay jël Jóob yéen kaay gii de Le mu xëy di ñu xamal lan ñu en tout cas li des mooy virus bi moom ma ci ndakaaru yéen kaay gi du l'observateur mu ñu xamal ñu médecin yi nag li nga xamante ni daat nañ koy wax daat nañ doy waar nee ñu nag maanaam cas grave yi buy continuer di am maanaam li nga xamante ni nag maanaam maara day taali moo dal Italie dal France dal Espagne mën naa dal Sénégal de maanaam ñu xëy rek gis maanaam nit ñi di faatu mel ni ay weñ loole nag ñu ko waaye nag médecins yi en tout cas daan nañuy fi dànkaaf askanu Sénégal jël say matukaay maanaam xob bi ku nag bala ngay lakkale l'observateur mu ñu xamal nañu diwaanu Wakaam nag juróom-ñeent ci ay nit daan nañu fay amee li nga xam ne mooy jàngoro coronavirus journal bi nee na Medina ci benn immeuble boo xam ne jamono ji dañu ko quarantaine ndax dafa am benn pa boo xamante ni moom dafa amee coronavirus yéene kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal na ñu Sénégal nag ji toll na si jamono joo xamante ni ju doy waara doy waar la bu ñu wanee ak yaafuus rek mbir mi mën naa jéggi dayoo yéene kaay gii di L'As moom mu xëy daal dañuy dikkal ci jamono joo xamante ni nag da ngay xëy dégg ay faux médecin ay faux gendarme ay faux policier ay faux douanier ay faux avocat ay faux nangam ak sangam journal bi mu ñu xamal na ñu ñi ñëpp di ko def nag bëgg a dund kese rek dong moo tax yéene kaay gii di réew mi ko di Diouf moom nag daan nay porte plainte ki nga xam ne maanaam mooy Amadou Samba faux médecin bi yéen a kaay gi di grand mu ñu xamal lan ñu Amadou Samba moomee nag moom bi mu jàkkaarloo ak enquêteurs yi la mu leen xamal mooy dama rus gàcce gi nga xamante ni moo ma topp nag moom daat na jaaxal lool li xaw ma lan laa ci doon duggee yéen a kaay gi du l'observateur mu ñu xamal nañu li nga xam ne enquête bi jot na ko wane Amadou Samba faux médecin bi moom nag ndeke da doon wax ne moom ab gynécologue la léeg-léeg mu ne ab cardiologue la léeg-léeg mu ne ab daal ñaari baat ñett mu ne nangam la di dëbb li njaa nag askan wi bëri na ay société yoo xamante ni daat na leen di nax journal bi dikk na ci virement bancaire yi nga xamante ni RTS daan na kay defal yéen kaay gii di libération moom mu xëy dikkal ñu ci couvre-feu ndeke couvre-feu bi am na si ñoo xamante ni neex na si ñoom maanaam ñi nga xamante ni ñooy jaay cere ñiy jaay cere ñoom nee nañu juróomi waxtu ci ngoon rek maanaam cinq heures seen cere yépp daal di jeexa yéen kaay gii di réew mi ko di jaay na daal des Mourides maanaam di ko fësal kontaante gi nga xam ne daana koy am ci mooma bu weeso deux cent millions yi mu joxe berne yi nga xamante ni daana koy andil ñi nga xamante ni maanaam ñoo amee coronavirus yéen kaay gi de la témoin moom mu xëy di ñu dikkal naan ñu nañu nag taxaw na ab seetlu waxante dëgg Macky Sall moom addu kalpe lay def wala masata fi sabilillah la Macky Sall yi def yéen a gii di la témoin moom nag mu wax ne Macky nag li nga xamante ni waxoon nañ ko moom daf ne woon dafay décaisser maanaam débloquer lu ci mille milliards ngir nag mën a janoo ak jàngoroy coronavirus te ci biir loolu gis nañ ne moom Macky koppar yi nga xamante ni am na ñu ko dajale ci secteur privé bi Macky daf kaa daal di te moo ne day bëri na ay hommes d'affaires yu nekk ci Sénégal am jamono ji maanaam xanaa nag dafa bëgg addu kalpe di def ay raquette le témoin nee na bëri na nag ay homme d'affaires nekk ci secteur privé bi ñoom nag li nga xamante ni moom la ñuy ruumandaat ci suufa mooy jamono ji xanaa du contribution nag volonteer mbir mi nag dafa dem bay niru sax li nga xam ne maanaam mooy raquette yéen a kaay gii ba tey mu ñu xamal lan ñëw jàngoroy coronavirus ji daan nay tax nag soo moytuwulee ñu bari doon liggéeyee ci otel yi danañu am ay jafe-jafe yéen a gii de la turbine moom xëy di ñu xamal lañu nag lu jëm ci wàllum contribution yi nga xamante ni nag askan wi ñoo ngi koy def waaye nag gisaguñ Macky Sall nag moom joxe contribution ma yéen a kaay gi ne kees noiruk Macky Sall gi ba léegi ni nag yëngoogul yéen a kaay gi ne sunu làmm ñu fekk fa Biram ñi ñing moom nag la xam xamle nee na combat Ama Baldé Modou Lo maanaam jamono ji amatuñu si xel mu dal kane boobale combat dina daa di am la ko waral nag mooy jàngoro coronavirus yi ndax nag tànk jàngoro ji moom ma ngi fi boobale combat du mën a am